ko doon wax foofu noonu loolu lay bëggoon laa ci noonu. barke. nee booy ñaan war a wax barki rasul waroo ñaan si barki rasulullah bi hurmati muhammad nee na boobu kenn waru def. la. mu ne li moo laajtee léegi nag maa ñaareel laaj bi maa maa ngi bëggoon laaj ne pour góor góor bi saw daal bu fekkee taxaw na pour di saw. Hmm. ndax xaraam na wala araamul. Hmm. waaw baax na jërëjëf fooy ootee. loolu laa bëggoon laaj oustaz pour ñu leer ñu ko. Hmm. fooy ootee nii. maa ngi wootee Spain. ah wa jere jef jere jef mo ngi la ñew tontu ci legi jere jef wa baxna na. laaj bu njëkk mën a waxati sax. post ok soo nga né ci ah. barké rasulullah ah, sallallahu Alaihi Wasallam. soy ñaan waaw ci ah, barké yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam waaw. Ken amul ci ben cër. Mhm. ku dul yalla subhanahu wa taala. Mhm. yonent bi màggeewu ko. Mhm. sëriñ màggewu ko mbin benn mbindeef màggewut ko ba sa digganteeg sa borom li nga koy ñaan nga def fa turu keneen yonent bi sax daf ko aaye li nga mën a barkeelu ci yonent bi rek mooy sallallahu alayhi wa sallam mooy jullit ci moom amma barkeelu yonent bi rek wax jëriñu la dara ci ñaan mhm. miin nañ ko nag miin nañ ko waaye du du du du du du yàlla moom mhm. soo koy ñaan moom ngay tudd mhm. wax ay turam jottaliku yow ci sa jëf ju baax joo def ngir yàlla mhm. loolu yonent bi saxal na amaa wax gi rek ne ci barke yonent yi wala ci barkeeb diw ci barkeeb lii barkeeb sama ndey sama baay mhm. nit ñee ko miin rek waaye barkeeb boobu làmmiñ bi miin la rek rek waaye barkeeb boobu nit ñi miin ko ba nga xam ne barkeeb kooku yàlla du ci sukk jox la dara de mhm. yàlla moom mu ngi mu ngi lay jox li nga ñaan ci sa xol bu set ak yoonu ñaan wi nga war a jaar mhm. pour jox tudd ko tuddam yu sell yi mhm. kon kuy ñaan li mu war a def ci barke yonante bi rek mhm. mooy julli ci yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko defee rek boobu mooy barkeelu ci yonante bi amaa barkeelu maa ngi barkeelu rek ci yonante bi ci barkeem defal ma loolu jëriñu dara ci ñaan waaw ku koy def daal def ko miin rek waaye nag xam ne yàlla moom gërëmul loolu ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi mos nañ nekk la mu dal dem mer xonqal bëtam dégg nga ko góox lexam yi ndax ne da ngeen may def mm, morom ci yàlla kon kooku boo demee bay wiital ci diggante sa borom bu ko fa dugal xanaa fu la joxal ndigal ne la tudd ma fa te loolu mooy nga julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo ñu dàq ñaan waaye gisuñu benn fu mu bind ci ñaanam yi mhm. ni ci suma barke bi mhm. wala ci suma daraja bi yàlla joxal jaami dara mhm. comme gisuñ moom mu wax ko lu war a tax ñun ñu wax ko kilifa yu baax yi ñu xamit mosuñu leen gis yonent bi daal mooy julli ci moom mhm. aw ci sunnaam mhm. e, ñaan yàlla lii mooy li wér mhm. e, wasallallahu alayhi wa sallam beneen bi mu ne ñaareel bi kuy hmm? seben di taxaw e, góor la mbaa jigéen taxaw seben dagan na waaye ci condition ne fi muy taxaw di semaine du fu fu dëgër foo xam ne dafa saw mi day jogaat dellu si ci kaw nekkul itam fu ubbeeku foo xam ne. Mhm. nit ñi danañ gis li muy denc. su amee loolu taxaw semaine nagat na waaw ndax léeg-léeg am na place yoo xam ne. boo ci jonkanee semaine. Mhm. semaine bi day dellu siwaat ci sa kaw. Mhm. kon su boobaa soo taxawee. Eh, semaine eh, su boobaa dara nekku ca exemple tey boo demee ci hôtel yi. da fekk fi ñuy fi ñoo def semaine kaay nit ki day taxaw tiim ko. foofu noo fay jonkane. bàyyi foos nga taxaw. parce que loolu fi yeneen àll yi. benn melokaan boo xam ne boo fa jokkanee semaine di nga gaañu mm-hmm. wala semaine bi dellu siwaat ci sa kaw kon boo amee fu sutur la boo xam ne mën ngaa taxaw mm-hmm. semaine mm-hmm. nga taxaw semaine dara nekkul ci waaye nag bu fekkee jonkon bi semaine bi dellu si di kaw moo gën a suturlu moo ëpp waaye dagat na am na keneen ku nekk si line bi asalaamaaleykum allo hello ñu ngi laa dégg. asalaamaaleykum. ah ok waaw jërëjëf ah maa ngi laajte. waaw dama wan suba suma tiibi tuuti maa ngi laa nag eh, man eh, catholique la. ah catholique nga. maanaam jërëjëf si weeru man di ñaanal sant bu mu bari te kontaan naa trop si Gambian eh, TV Soul. waaw. Uh, bu ma uh, nekkoon xale gisumoon TV télé bu toll Gambian pare bu ma gisee bu ma amee uh, satellite di seetaan Gambian télévision ak yëpp ak ak xibaar ak xiwaar yëpp mhm. kontaan naa si torop torop torop mhm. fan nga koolee islam bi ñu man christian la ban maa ngi laaj bu ma nekkoon xale bett yi nekk di dox fale nekk di dem fu nekkaan wante maa fekk suma mbokk muslim suma neighbors waaw am na jële génne konaaki ñëpp ñu ne ma toggal leen ma seet leen nekk leen toggal leen seet xanaa christian and catholic wante toggal Eh, toogal eh, eh, muslim hmm, loolu nga laajte mm. fan nga koolee waaw fan nga koolee ngi maa London London ah, London Angleterre léegi maa ngi fi waaw ah. ah, waaw Angleterre waaw baax na baax na jërëjëf jërëjëf ok kon yaa Aysatu ñu ngi gërëm mbokk moom bu baax. waaw waaw euh, def na lu am solo. Mhm. ndax laajte lu baax. waaw euh, chrétien ak jullit yëpp ñoo ci bokk yam. dëgg la dëgg la te chrétien bi nga xam ne itam. Mhm. mu ngi dëgër ci chrétien am. Mhm. Euh, dafay nangul lislaam ngeen lam. donte ne yàlla booleegut ko ci. dafa mel ni kii kenn la ci ñooñu la ñu ngi koy oo ne ko mu ñëw yooyu ñu incha <laughs> allah. parce que xol bu set bi mu am. rëyut ndax ñu bari am na ñoo xam ne dañoo rëy. di wax ci diine beneen jéem a jëriñu ci diine boo xam du seen diine. waaw mu doon laaj waaw maa ngi koy dégg waaw ah, waaye kii nag bokkul ci ñooñu le tax na nag mu ngay dellu laajte nag ndax chrétien dina toggal jullit wala déet waaw chrétien waxuma dina toggal jullit mhm. waaye dina toggal boppam moom ñam wu moom bu jël ko yóbbul ko jullit jullit lekk ko loolu dara nekku ci mhm. fekk ñam wax araamut mhm. dara nekku ci su ko toggalee ci biir kër jullit bi dagan na jullit bi lekk ko su fekkee chrétien bi dafa togg ci këram loo xam ne lu xaraam nekkul ca sàngara nekkul ca yàpp mbaam nekkul ca te cosaanu chrétien nag duñ lekk mbaam duñ naan sàngara mm-hmm. xaw ma lu ko ci dugal gannaaw gi waaye cosaanu chrétien mbaam bokkut sàngara bokkut mm-hmm. kon nag li ko ci digal moom mm-hmm. leneen la kon nag su fekkee lekk ga ñu togg lu xaraam nekkul ca soo ko teggoon sa biir kër jullit bi gisul ko sax nga yàq ko ba mu rafet enu ko indi ko jullit bi su xamee diinaam daf ko war a lekk loolu lu dagan la dara nekkul ca insha am na keneen ku nekk ci line bi asalaamualeykum asalaamualeykum. macha allah. waaw. moo yoon. asalaamaaleykum ñu ngi laa dégg. waaw jërëjëf waaw jërëjëf ma ne ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ah ok nga nekkoon ci laaj bi benn benn waa baax na du dara. jërëjëf jërëjëf yow. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu waaw ma ma eh, eh, sëriñ la. waaw sëriñ la. waaye man suma papa christian la. Ah. dara sanga. Eh, mën nañ ko dara nekk fan. dama ko def. macha allah. baax na jërëjëf jërëjëf. dama raxas suma sujeer juróom ñaari xam juróom benn yoon juróom ñaar yëpp. jërëjëf waaw jërëjëf kontaan naa baraka waaw jërëjëf jërëjëf ah, yow rek la ñu ngi fara jàmm ñu continué jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf Mm-hmm. allahu am na keneen ku nekk ci line bi asalaamaaleykum hello hello asalaamaaleykum hello hello ñu ngi laa dégg asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah da nga am sa télé bi tuuti hello hello ñu ngi laa dégg hello hello salaamaaleykum bisimilah ñu ngi laa dégg wàññil bi tuuti. man la dama leen a nuyoo. waaw. waaw. man dama leen bugg a laaj. waaw. léegi bu fekkee ne dama ñaari laaj laa bëggoon. wàññil sa télé bi tuuti tuuti. bi xaaral ma wax ko xale yi mu ñëw ko xaaral xaaral bala bala maa wol do eh eh naa naa télé kala ngeba ke bamba. wàññi ko tuuti. waa baax naa ñu ngi laa dégg bamba ne kele talange bamba ñu laa dégg xam naa kii benn pula joolaa la de <laughs> baax na bismillah alhamdulilah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah hello waa ñu laa dégg waxal waxal waaw dama leen bëgg a laaj julli gi nag waaw su fekkee ne yaa ngi war a julli takkusaan ñanan ci taxaw waaw nga pàtte dafi ñatta léegi soo jógee soo ne salaamaaleykum loo def am boo fekkee yaa ngi war